par décret bi nga xamante ne président def na ko bu Samba Ndiaye euh, ñi nga xamante ne ñoo koy critiquer tamit c'est important ñu def ci taxaw seetlu parce que ku ci mel ne Sadikh Top ku ci mel ne euh, Abbas Fall ku ci mel ne ki nga xamante ne mooy gi Marius Sagna ñu bari xam na ñëpp xam nañu ne wala boog ñëpp ñu bari jàpp nañu ne euh, ñoom Ousmane Sonko la ñu gën a jege que président Diomaye waaw bipolarisation boobu noonu mhm. dañ koy bañ bëgguñ gars yi wax ci mhm. waaye ñun duñ ko

je devais quiconque dem YouTube voilà bu publication yi. Mhm. kan j'ai jël décision rek défendre mordicus Basse Diomaye Faye. Mhm. xoolal nit attaqué à non amul amul ci ku est qui rek a défendre. non. Oh, de. <laughs> Hmm? politique amul. <laughs>

ñu éliminer ko mu dem coalition Diomaye président lu tax daxuñ ko woon. question bu mag. lu tax moom sa Ndiaye bu muy jógee bu mu demee parrainage ñu téye ko. Mhm. mu ne day soutenir Diomaye président pourquoi daxuñ ko woon. ah mais Ousmane Sonko nee na président Diomaye xamul woon. ku mën a nangu Samba Ndiaye li mu dundoon. dans le passé ku mën a nangu Samba Ndiaye. Mhm. ku mën a bañ a Samba Ndiaye. Mhm. daxal Arona Coumba Ndoffène. ak Mimi ak Mimi Touré. ak ah, ah, Abdourahmane Diouf.

mooy mettre dynamique bo xamantene c'est plus dangereux que la gestion de l'atome qui mhm. yor bombe euh, ku yor molécule hydrogène mhm. yor ay photon ay yor ay positron ak ay neutron ne day défar bombe atomique politique moko gëna dangereux scientifique nga day ndekete moko gëna dangereux parce que mhm. conséquences yi nga xamné mën nga ko ci jëlé monoko nat parce que quand on parle de l'humanisme c'est tout les, tous les agrégats de l'être humain qui sont mis en jeu. Mm -hmm. Des politiques, des désinam, des euh, dé, <laughs> désinhumaniser vite. le comportement humain là, mhm. dañ koy dindi. Mhm. teg ko fait indi la ay instinct grégaire. Mhm. te instinct yooyu noonu moom mooy indi guuta. instinct yooyu nag mooy animé ñi nga xam ne amaan na. ñoom futra ñu takk. nuñ def fii ci ñun bàyyi ñu. noonu la ñuy def ñam ci nguur

sérieusement lu am solo gis nga Sénégal fi su goudé on fait semblant que tout le monde dort mais kenn nelawul gis nga fi téléphone sax suñ ne dañ jé téléphone ku né luy xew mo gëna danger téléphone. parce que dañuy gis xam am na xamanteni xamante ne ñun bu ñu xamee dinañ dem ci gis nga malik Malick salmi dama def radio ma attaqué ko.

ràññee nañ té nit ki suy wax dañ xam nit ki suy wax contraire mhm. mais té bu mu ñu de ne ma da information am information lire, le maire de kermaba mhm. deux jours avant mu def conférence de presse am laa message ma ne ko dégg naa ne diw dem da ngay da dem da ngay bàyyi APR. démissionné ci bàyyi Amadou Ba dem. ma ne ko soo ko defee c'est indigne parce que Macky Sall dafa na teraanga bu ne te da nga trahi Macky Sall dem ci liste Amadou ba ñu yóbbu la trente-cinquième a sa ngor. donc dans un espace d'une semaine ci trois partis. Uh-huh. <laughs> benn intervalle d'une semaine Abdou Ndiaye joge na APR dem ci Amadou Ba dem Pastef ci intervalle moins d'une semaine. Uh-huh. réew mi neex na nag ñu mel ni ñooñu nag torop wax dëgg ñoox yooyu wax dëgg dafa ne da ngeen di bàyyee mm-hmm. seen bop. ndax xam naa ne lu ñu wax race Poutine ñooñ ci race Poutine lañ bok. <laughs> race bu gën a yées ci race ci ñooñ lañ bokk mais dañ leen nangu loolu parce que ñoom wala gëm seen honnêteté ak seen dignité peut-être may na leen loolu xam nga lu ma tontu ma ko mm-hmm. mu ne ma ça c'est du passé mu ne lu mu wax yëpp c'est du passé donc il n'a pas de remords il ne se rappelle pas moi l'homme devant par la na comme elle n'y il kooku que dama ne place parce que vraiment moi, il li da nga ne de a ci àdduna bi parce que les oiseaux de même plus volent ensemble mhm. <laughs> ay ca Abdou nomination ki nga xamante ne moom mooy euh, Samba turandoo Samba. Samba ah, ah. Ndiaye.